asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki talibe yi rawatina mboolem talibe bàyyi fuñ mën a nekk rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar ñu ngi leen di yoon gannaaw ndokkeel leen mm, ci weeru koor wii nga xam ne biñ koy tàmbali dañoo ñaanoon yàlla moo may ñu ñu tàmbali ko ci jàmm jeexal ko ci jàmm yàlla mel na ni nangu ne suñ ñaan. te bàyyi daana wax ne yàlla boo xasee bu ubbi buntu ñaan buntu nangu ma lim lay may du yem rek ca la ko ñaanoon waaye lépp lu baax rek mën na la ko caa boole yaaleel ñu ngi ñaan yàlla yàlla euh, defal ñu loolu. Euh, ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Amin nag xam ngeen ne dakaar dañ fa tàmmoon di fa jullee moom mu daan ko taxawee su fa nekkut léegi Cheikh Makki daan ko teewe léegi nag li xew mooy euh, fi réew mi toll nii. wax dëgg yàlla ñu wax ak autorités yi autorités yi am compréhension ba defal ñu yombal bañ mën a julli fii ci madina te yonent bi sallallahu alayhi yàgg ngeen a dégg ñu ne ci tabaski dafa jënd ñaari xar rendi ko ne benn bi maa ko rendi pour man la maa ko jaamoo yàlla waaye beneen bi maa ngi ci uutu képp ku nekk ci sama xeet koo xam ne dafa amut tabaski bàyyi mu ne loolu sax tax na man léeg-léeg dama doon mébét ñàkk tabaski ngir dugg ci tabaski yonent bi ndax tabaski yonent bi moo gën a garanti moo gën a foor moo ëpp barke. Euh, bu ko defee nag su mel lu mel noonu amee nag ñu toll ci réew mi te nag suñ jaamu yàlla moom duñ ko duñ ko oyofal duñ ko duñ ko duñ ko maye duñ ko saraxe waaye na bi tamit rek réew mi tamit duñ ko maye duñ ko saraxe te ñi jiite réew mi ñoom foog ñu jox leen cër nangul leen. dégg nga te Baye daf daan wax ne mu ne suma taalibe daal li ma ko sant mooy lépp lu baax ci réew mi rek na ca loxoom nekk waaye lépp luñ ne mooy indi fitna ak mooy indi yàq ci réew mi bu ko ca kenn mën a tudd bu fekkee ne yooyu yëpp dajaloo na nag kon dafa mel nii ren jii taalibe yi dayloo jullit Madina gi nga xam ne danañ ko defee fii ci jumaa ji ngir mesure yooyu nga xam ne moo tax ñu def ko julli googu mën naa yóbbaale jullit ñëpp ñu doyloo loolu kon bu boobaa nag euh, loolu mooy ndigal li euh, ñu jàppee ko noonu képp ku nekk Dakar surtout bu boobaa na nga jàpp ne rek noonu la demee euh, ñu ñaan yàlla yàlla teggil ñu mbas mi delloo ñu suñ sago ba déwén ñu man koo defee ni nga xam ne noonu lañ ko mun a defee wa maa zaalika alallaahi bi aziiz